asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki àddina alxaaji Mbéngue Diop ak Mame Ndokh TV mbokk yi euh, tey ñu ngi sunu émission boobu nga xamante ni moom la ñu tuddee émission mbaar mi mbokk yi comme ni ma leen koy waxee ci émission yëpp euh, émission bi fii lañ koy defee fii ci mbaar mi gis ngeen ko ni mu délabré woon noonu lañ ko bëggee li ko waral mooy di invité autorités yi ñu fiy ñëw pour au moins ñu mën a xam ne bu ñu leen invité fi gën a sori ci gott ba ñu mën a sol sal dam dem fekk fa nit ñi bon tey nag ñu invité responsable bu mag responsable politique boo xamante ni mën naa ni doomi pees la ci pees la juddu siiw ba bu juddoo ba tey pees rek la ma sa xam dëkk fii Tivaouane euh, mbokk yi ñu gën ko xam ci Lamine Diop grand ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. El maa ngi lay fay bu baax a baax di la gërëm di la sant ci invitation bi nga xam te ni invité nga ma ko fii ci mbaar mi. Mhm. donc mu nekk bërëb bu am histoire. Mhm. mais bërëb bu am solo si may sawar lool ci toog fii. jërëjëf moo li ñu bëggoon rek mooy nga expliquer ñu ba yan statut nga nga gérer au euh, PS waaw bon ci PS ci parti bi bu dee fii ci dëkk bi section bi nga xamante ni bokk la ci section yi gën a yu mythique yu yàgg ci parti bi muy section Kuli eh, man maa ko jiite. Hmm. Euh, tonton Pape Diop moo ko yore woon ci lu yàgg. Hmm. bi ma ñëwee bëgg a ci base bi Ousmane Tanor yàlla na ko yàlla yërëm sant ma ko bi ma ñëwee moom moom ma jox section couli bi ñu renouveler ma jël waaw donc section bi nga xam mooy couli may secretaire général bi ba pare bu ñu demee ci biir dëkk bi coordination bi maanaam li fi am pour parti socialiste fii ci Tivaouane ci commune bi aussi ma nekk secretaire général coordination bi hmm. bu ñu yéegee aussi hmm. dem ba département bi ma nekk secrétaire chargé de la vie politique bi. bu ñu demee ba ci région bi nga xamante ni Ousmane moo jiite woon région de Thiès. maay secrétaire chargé de la communication. bu ñu gënee yéeg dem ba ci kaw au niveau national. aussi yàlla dafa def ñu am kuréel goo xamante ni. moom mooy kuréel ga gën a yaatu. ci kuréel googu aussi fi nga xam moo yore mbirum stratégie ak discours bi. man lañ ko dénk. parce que suñ parti ñëpp xam na ni nag dañu organiser wu. waaw organisation boobu moo waral. boo ko commencé fii ci kuli mhm. ba ci kaw fu nekk am naa fa cër loolu ci politique la. Mhm. aussi ci biir liggéey. Mhm. ginnaaw bi nga xamante ni yor naa aussi suma cabinet de quinze consultance internationale. bu tudd rappel nga xam mi ngi yëngu ci sous région bi. maa ngi aussi jàppale ki nga xamante ni mooy Serigne Mbaye Thiam jàppale ko mu woon ma ci wetam. pour ma nekk conseil technique am. maa ngi ko nekkoon ci éducation nationale bi mu jugee éducation nationale dem au et assainissement ci kóolute goo xam ne président de la république Macky Sall kóolu na wóolu na ko ci mu woowaat ma ni ma Lamine kaay gunge ma nekkaat sama wet en tant que conseiller kon tey aussi mën naa jàpp ni conseil technique bu Serigne Mbaye Thiam la mbokk yi dégg ngeen ko di doomu Tiwaan boo xamante ni gis ngeen ndomba tànk yi mu wax yëpp ni moom la takk mbokk noonu lañ koy defee fépp foo xamante ni doomu Tiwaan nekk na fa takk ay ndomba tànk dinañ ko waxtaan waaye lan la ñuy waxtaane mooy réew mi bi ci des mooy Tiwaan mais grand li ñu mooy gis nañ PS di woon di boo xam ni mooy parti bi gënoon a mag ci Sénégal parce que mag ñi nga xamante ni ñoo dëkke woon réew mi koo ci mësaan wax PS la ne est-ce que PS mooma ñu xawoon est-ce que mu ngi dund ba léegi waaw xam nga <laughs> PS du musa dee ndaxte idée la ndax ki ko togg muy Léopold Sédar Senghor bi mu koy tabax dafa bind dafa xaatim te lépp loo xam ne idée la gëm-gëm lay doon lay laaj engagement lay laaj donc loolu du mus a dee ba pare bi mu ko tabaxee ba pare pour teg ko nag dugal ko ci biir réew mi tas ko dafa dem nag uti ay wéeruwaay dafa dikk fii ci Tivaouane wax ak borom bonakaare bi mu ñaanal ko mu dem Touba wax ak sëñ fàllu mu ñaanal ko te nag ñun ay doomu Tiwaawan lañu xadra bi rek lañu am gëm nañ ni lépp lu seexal xalifa teg loxo du daanu dina jeng nag mais du daanu mukk pees du musa dee que bi nga xamante ni nekkaat nañ ci nii parce que nit ñi parfois ñu réer biñ demee ba 2000 dañ ni yàgg nañ fii 40 ans dara te fekk boobu tabax réew lañ doon def nit doomu aadama rek El Hadj ci dundam pour mu réaliser wu dëgg dina weesu ñeent fukki at doomu aadama rek nit boo ko jëlee mm-hmm. bu la yàlla baaxewul lool pour nga dem ba tekki ñu naan diw mi ngi ne di nga passé quarante ans lu toll ni réew nag nga war koo tabax war defar ay mbir walla a teg ay plan ko loolu yëpp Senghor bindoon na ko xaatim mm-hmm. jox abdu abdu Diouf dénk Ousmane mm-hmm. gis nga Ousmane Tanor bi mu gaañoo ci la ko ñu bari xam lu toll ci onze pays fukki réew ak benn ñoo taxaw ni seen plan bi ñuy doxal y compris Brésil y compris euh, Afrique du Sud ak Nelson Mandela maanaam plan ba ñu am di ko doxal Ousmane moo bind tugg ci nekk bind ko jox leen ko bi mu génnee àdduna ci la ko ñu bëri xam donc ñun xëy na boolewuñ dara ak coow mais liggéey bi nga xam ni ñu ngi ko war a def nag ñu ngi koy def léegi-léegi sax yow mii nga tooñ ma li ma yéen a ngi ci terrain bi de mais nag dafa am nu ñu koy defee mais nag mais mais nag grand presse ba ñu xamoon dëggantaan dafa mel ni bi nga xamante ni euh, président de la république Abdou Diouf jóge na fi Ablaye Wade jaar fi bi Ablaye Wade ne nekk président de la république yéen a ngi doon opposé dëggantaan di def téye seen PS mais dafa mel ni nag bi président Macky Sall ñëwee dafa mel ni da ngeen a seeyal PS ci biir APR est-ce que est-ce que demeewul noonu non non demeewul noonu xam nga nit da ngay nungu dogal nit da ngay nungu dogal ñun dañuy dem élection 2012 bi ñuy dem élection 2012 askan wi Sénégal daal ni Macky moo leen toy loolu boo ko nangoo da ngay ànd moom gunge ko ci loolu Macky aussi mu ni dem seetu Ousmane ni ko dama bëgg nga ñëw ànd ak man gunge ma ma uti su ma amee ñu gañandoo ensemble gouvernons ensemble mm-hmm. yàlla def ñu dem bi ñu demee ba nga xamante ni am nañ ci ndam jële ko ci gouverner ensemble boobu ñu def ko mm-hmm. xam nga nag àdduna day dox léegi réew mi ni mu doxee léegi doxee koon woon yaa dix ans doxee ko woon yaa trente ans xam nga yaa ngi naan pees bi amoon doole mais boobu pees moom doo nga fi nekkoon xam nga léegi bu njëkkaan mbir dina xew suba ba ngoon jot ñun duñ ko yëg waa Tiwaan du ko yëg waa Tiwaan bu ñu ko yëgee ci guddi gi bala koy waa Pire di yëg xëy na guddi gi passé mais léegi fii ñu toll nii man ak yow taxaw fi nii lu fi xew léegi àdduna bi yëpp yëg ko loolu nag évolution la évolution buy dox da ngay nungul aussi ni noonu lay doxee ci lépp benn parti kundum yow kese nga taxaw ni mën naa gagné élection amatul ci àdduna bi waxuma Sénégal mais ci àdduna bi yëpp amatul léegi ay nit ñu mën a gis ni seen doxalin ak seen xalaat mën na xëy na am na fu muy tombe fu mu bokkee parce que mënta doon benn bu doon doon benn jarul ñuy def parti yu wute mais am na fu ñu wuute mais ci niñ xalaate ni nii mën nañ ci doxale réew mi loolu mën nañ jàpp ni bokk nañ ko ñu ni nañ àndandoo ci coalition bennoo Bokk Yaakaar mais nag li ñu ciy nekk lépp nag teewul ñun dañuy moom suñu bopp dañuy am suñu indépendance su bopp dañuy am suñu autonomie bopp mais nag suñu ambition parce que bi ñuy sos parti bi bi ko Léopold Sédar Senghor di tabax pour mu jiite réew mi la te jiite na ko pendant quarante ans mais ambition boobu dara dañu ci. mais grand est-ce que def élection présidentielle au niveau du Sénégal te PS amu ci amu ci amu ci candidat est-ce que loolu grand lecture la xam nga. Euh, ba tey damay dikkaat ci ñi sos parti bi dañ doon wax ndànk-ndànk mooy jàpp golo ci ñaañ mënoo ànd ak nit nga ànd ak moom ci ànd nawle àndu gor ngeen ànd liggéey pendant juróom-ñaari at mu bokk ak liggéey boobu yow kooku taxaw ni dama soxlawaat ngan ko déedéet puusal damay uti loolu du àndu nawle ànd gor dëgg mooy ki nga xamante ni gunge ko ko. mais fexe nga ba ñu defar chat réew mi ba ñaari mandat mënatula weesu moom ndaw la am na fu mu commencé fu mu jëlee réew mi am na fu mu koy yóbbu kooku nii kat dama bëgg a laajaat pour sama dernier mandat nga ni ko d'accord dinaa la ci gunge parce que nag dynamique boobu ànd boobu ñu ngi ko sos 2012 nañ ko continuer ba 2024 bu ko defee kii li nga warloo woon ak moom que nag mu metti lool. parce que tax na ñun ñii naan seeyal ngeen seen parti ñii naan amatu leen parti lu nekk dund nañ ko ci am na ñoo xam ne sax tam nañ ci dëmm ba génn mais Ousmane tanoor ba tey ci vision yàlla na ko yàlla yërëm dañu woon ànd ak président Macky Sall gunge ko mu am deuxième mandat mooy njariñu parti socialist ndaxte ku ne xam na ni bu ñuy wax parti rek rek parti wax naa la ko sànq ni ñu organiser woo ku ne xam na ni loolu pees rek la am ku ne xam na ni machine électorale maanaam jug leen ñu jug. tey bu ma bëggoon a convoquer léegi damay woote les responsables section yëpp xam naa leen jug leen ñu jug département bi ñi fiy responsable xam naa leen jug leen ñu jug loolu parti social rek la ko yàlla may machine électorale boobu ñun rek ñoo ko am donc am na nu ñuy taxawee incha allah pour dellu si waat reconquérir con pouvoir bi conquête bi day yomb mais bu fekkee da ngay ànd nit ki ba pare jiital ko faqastal ko loolu ni ni nga nit ñi ngay waxal sax duñ la gëm. mais kon mën nañ jàpp ne élection présidentielle yi di ñëw mën na ci am candidat. mais ala mënut a ñàkk léegi nag. candidature bi nday nday day nekk ci biir Benno Bokk Yaakaar wala day nekk ci biir parti socialiste loolu leneen lu ñuy waxtaanee la mais nag comme ni mu ko daan waxee xam nga déjà yaa ngi bëgg a dugal benn pièce bu ngeen ñu dugalul élection présidentielle yi passé parce que bu fekkee ne da wax ni mën na bokk ci biir ci biir ci biir Benno Bokk Yaakaar mën ngeen dëggalaat troisième mandat bi ñu ni wax est-ce que du ngeen tànnaat président Macky Sall pour mu nekkaat seen candidat xam nga xam nga xam wax troisième mandat ci mandat boo xam mi ngi commencé 2019 constitution bi leer ci nañ lim ci wax mu leer ci nañ nul ne peut avoir plus de deux mandats consécutifs muy ay tubaab yu leer nañ kenn mënut a am lu ëpp ñaari mandat yu tegaloo yu bokk ndeeg baay galgalu di wax naan bële paas non non non xam nga ni président Abdoulaye Wade xam nga xam nga nit bu ngeen di ànd rek da ngay rafet njot ba keroog ngay gis leneen safaan mais daal moom kenn mënta def ñaari mandat bi mu jot a def ci la bokk kenn mënta def ñaari mandat yu bokk ndeeg baay maanaam yu toppante loolu mënta am suñu constitution dàq na ko comme nag ñi ngi doog a dugg ci mandat bu bees bi ñu liggéey <laughs> mais yàgg bawul dara yàgg bawul dara ñu liggéey soreetul mbokk yi yéen ko déggandoo nañu liggéey dégg ngeen fi ñu jaar ci PS mais nag mënuñu waxtaan ba pare te waxtaanuñu Khalifa Sall ci yéen la bokkoon di élément bu am doole ci PS ay coow am mu daw génn ngeen wax dàq ngeen ko est-ce que yéen a ngi xalaat ni xalifa Sall mën na dellusiwaat ci biir famille mais dàquñu ko dàquñu ko xam nga waxtaan lu neex borom kër mënoo ni damaa bëgg lii bëgg la ca des. kan borom kër boobu ñun suñu kilifa kenn la muy Ousmane tey yàlla jële ko fi Aminta remplacé ko ñi ngi ci yeesal ñi ngi ci dynamique renouveler parti bi pour amaat yeneen kuréel yu bees donc bi ñu nee boo nekkee ci biir kër gi bu nekkat kër gi dañu bëgg añ bi ñu teg ko midi waaye ku bëgg añ ci añ bi midi na teew. mënoon yow da ngaa bëgg añ ci añ bi ba pare toog ba une ñëw naan sama an sama añ bu boobaa rek boo ko doxee defee añ ko def ko altine def ko talaata rek am na leneen lu la tax a jug xalifa parti socialiste non seulement da cee bokk mais da cee am cër ndax da caa liggéey euh, dañ ko ni woon dara jarul yàkkamti àndal ak muy sa mag nga topp ci ginnaawam yii ngay dugg nii sa yoon nekku ci coalition Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne ñun ci la ñu ne gis nañ ni parti socialiste ci la mën a nekkaat pour jug dem ca kanam parce que nag parti dafa am lu koy lu koy lu koy lu koy lu koy yëkkati gëmoon nañ ni loolu coalition moo ko mën a jox nga ñëw ni non non da ngeen di génn ci coalition bi dangeen di bàyyi dangeen di dem ñoom bi ñu génnee ci coalition bi élection législative yi nga xam ne am na fi ñoom bi ñu génnee suñ coalition dañoo dem ci beneen coalition mais pour pour bu fekkee coalition la rek bu fekkee coalition mënta ñàkk yaa ngi ci buy dox mais bu ci génn mm-hmm. biñ ci génnee ñoom dem ci beneen coalition tey ñun am nañu fukki député ak benn ñoom amuñu sax ñaari député benn député lañ amoon mu euh, Khalifa que tekkee ndombal suñu mbokk socialiste yooyu demoon tey amuñu benn ndombal tànk mm-hmm. donc loolu la Ousmane gisoon moo tax mu ni nañu toog ci biir coalition bi mais nag teewul avant muy génn àdduna que ñun ñëpp mm-hmm. ñun ñëpp suñu yéene muy man muy ñun ñëpp suñu yéene mooy ñu doonaat benn ànd mel na ñu meloon ñu ngi ciy dox. ñu ngi ciy kon ñu ngi xaar ni xalifa euh, Sall waa PS mën nañ ko tallalaat loxo. mu mm-hmm. digg del si ci biir famille am. incha allah lu xamante ni lu ñu yéene la lu ñu bëgg la. Mm-hmm. mais nag. est koy dox. non li nga xamante ni parce que nag soxla du am rakk euh, ñun fii ñu toll nii li ñuy dox mooy fii ci Tivaouane lu mel na fa mel ni Tivaouane commune bi lay wax ñi ngi ci renouveler ñi ngi renouveler Tivaouane feneen ak feneen mi ngi renouveler. ñi ngi renouveler suñu parti pour xool nu ñuy yeesalaat bànqaas yi parce que loolu yàlla baaxe nañ ñun am nañu boobu organisation maanaam bu ñu demee ba cinq ans six ans dañuy renouveler instance yëpp foofu lañ toll nii fii ci mel ni Tivaouane ci junni carte ak juróomi téeméer yi nga xam ne joxoon nañu ko tey jaay nañu junni carte yi ak ñaar téeméer bañ ñu wax ñu mën ngeen a renouveler seen coordination. Mm. keneen noonu keneen noonu donc ci instant yi. ci loolu lañ toll ñu paree nag ba nga xamante ni salaat nañ suñu parti bu waxtaan amee duñ ko dàq parce que am nañu demoon ñëwaat nañu bàmba Fall dellu si na Panda Diop dellu si na ñeneen ak ñeneen noonu donc loolu duñ ko dàq lu mën a am la tey nag vraiment mooy suñu bëgg-bëgg maanaam ñun famille socialiste bi yëpp ami ay tata ay satatal Sall Barthélemy xalifa ñun ñëpp ñu àndaat doon benn parce que gëm na ni bu ko defee lu ñu bëgg ci réew mi incha allah nañ ko am. mbokk yi dégg ngeen ko lu ñu bëgg ci réew mi mën nañ ko am mais nag grand duñu waxtaan ba pare te egsi wuñ aussi ci Tivaouane question bi ma leen njëkk a posé ci Tivaouane mooy monsieur le maire de la ville de Tivaouane Mouhamadou Diagne Sy Mbengue presque mën naa wax ni mandat bi jeexoon na bu ñu deful woon prolongement bi manga mandat bi jeex na est-ce que mën nga constater ci li fi Diagne Sy Mbengue def positif wala négatif. bon xam nga nag bilan ki nga xam ni moo ko adossé. moom moo koy défendre te gëm naa ni moom ni ma ko xamee buy tollee ci défendre ko gëm naa ni am na fulee taxaw défendre. bi la conseil municipal nga. mais mais waaw foofu laa lay dikkaat. voilà affaire bi li ci biir xam nga ko man ak yow ñooy man mii di waxee yow conseil municipal la li li ma xam. mooy gouvernance bi amélioré na ko trop. gouvernance parce que dégguma fenn ñu ni terrain bee jaay nañ ko diw diw dem na pour tabax nee nañ diw moo ko moom. dégguma ko fi. Hmm. bi ma ci ci ci juróom benni at yi. dégguma fenn ñu ni waa maire yi war nañ leen a fay te fayuñu leen. Hmm. ci juróom benni ati yi dégguma ko fi. Hmm. dégguma fenn que ni marché bi marché gré gré wala fictif boo xam te ni moom turam dugg na ci. donc lu jëm ci gouvernance vertueuse doxal na ko te loolu dafa sooxe woon trop trop trop fii ci maire bi. te loolu apporte na ko fi léegi nag li ñuy wax daanu dajul suuf yombul post maire dafa bokk ci poste yi gën a ingrat yi gën a doy waar ci politique parce que lu xew dañ naan maire bi la te am na ci yoo xam ne sax du maire bi moo ko war a gérer mais lu man di xew lu mën di xew ci dëkk bi dañ naan maire bi la mais le connaissant parce que nag bu dul dara it nag am na fu ma jaar ak moom xam naa ni bu défendre bilan jotee dina défendre bilan te man gëm naa dina am lu mu teg ci table ji ni lii def naa ko ci sama mandat. jàpp nga ni kon mais bien sûr parce que nag bilan bi suñu bilan la ñun ñëpp équipe municipale bi nga xam te ñëpp ñun ñëpp su ñoo ko war a defendre positif xëy na am na ju sooxee xëy na am na leneen loo xam ne bëggoon nañ ko mu gën a ñoŋ te ñoŋul mais encore une fois daanu dajul suuf. mbokk yi dégg ngeen ko yéenay yéenay yéenay àtte wax bi après incha allah ñu dem ci leneen mais euh, beneen question bi mooy Lamine Diouf. di responsable politique PS nekk Tivaouane ñu jëm ci ay élection municipale Lamine Diouf dafa bëgg a nekk maire Tivaouane wala bu mu koo nekk déjà élection amagul ah mais ci lañ jëm non xam nga boo ma nee ci lañ jëm maanaam tel période la donc élection amagul te lu ñëwagul nga cay wax loolu man du ma du ma du am du ma du ma nekk selbe ndoomu politique donc nii mbër mii mooy gagné wala ki loolu. non waxuma yaay gagné. néew ma néew ma yaay nekk maire dama ni est-ce que Lamine bëgg naa nekk maire Tivaouane wala bëggu la nekk maire. xam nga bëgg nga nekk maire. loolu képp ku juddoo ci dëkk am nga yéenewu am cër ci sa dëkk am nga yéenewu am mission boo doxal sa dëkk ndax bëgg nga nekk diriger sax bëgg nga diriger comité bi bu Tivaouane lépp lu sëq ci Tivaouane rek am naa yéenewu dox ci mission. mais man am moo li ñuy wax lu la tere nelaw parce que nag am na ñu jaar jaar ba pare ñu ngi sant yàlla donc amul amuñu fixation ci dara kayit du ma nangu ambition individuelle loolu baaxul ni man la déedéet parce que yow la moo gën a wóor man la baaxul li nga xamante ni moom moo leer mooy parti laa yor moom laa diriger fii ci Tivaouane muy parti socialiste te nag du n'importe quel parti euh, parti boo xamante ni tey kilif responsable politique boo dégg rek ci Tivaouane dañ naan la ah kooku day amoon na fi fii ñu toog muy kuli boo Pape Diop mi ngi maanaam mi ngi déggu Maodo Mbaye yàlla ko yàlla yërëm tonton Maodo yi ñoom ñëpp doxal nañu lu am solo ci parti bi donc parti boobu boo ko yoree da nga war a nekk à l'écoute dangay déglu parti bi parti bi lu mu la wax moom ngay def yow moom ngay def man Baye Fallou parti socialist la. kon daal bu waa socialiste yëpp dajee ni yow la. nga doog a takk amul luñ may sant nag ñoom. amul lu ma parti social parce que moo ma jaral ma ba lépp pour nekk ci seen service di leen liggéeyal di leen xalaatal di leen doxal di leen yendul amul aussi lenn loo xam te aussi waa Tivaouane parce que man Tivaouane rek laa gëm moom laa bëgg euh, comme ñëpp waa ñun ñëpp Tivaouane la ñuy noyyee amul lenn loo xamante ni mission boo xamante ni parti bi wala Tivaouane dañ lii kat Lamine war nga ko def nga naan non du ma ko def déedéet loolu amul. mais Lamine lan nga yaakaar ni Tivaouane par exemple ñi nga xam ñooy autorité politique yi fi nekk ni mu bëree takk ay ndomba tànk te ba tey du ñu gis ni Tivaouane fa mu war a dem ci émergence demu fa lan nga yaakaar ni moo bloqué blocage bi fan la nekkee. bëri na blocage bi nag bëri na sincèrement bu ñuy wax objectivement blocage bi parce que ku ne li nga am ngay sagoo ñun bu ñu sañoon Tivaouane romb fii ñun ñëpp ah. muy le maire muy les responsable ñun ñëpp bu ñu sañoon Tivaouane romb fii mais dafa am dynamique yoo xamante ni. mouvement yoo xamante ni dafay am lu koy lal luy luy nekk fondement bi mais am nañ yaakaar que ni vraiment li nga xamante ni am nañ ko aussi bëri na dëkk yu ko bëgg te amuñu ko boo xoolee assainissement bi fi état bi dugal muy programme assainissement bi nga xam moom la fi président Macky Sall dugal mais ci Sénégal plus de cinq cent communes dix villes lañ ko ci may Tivaouane bokk ci donc am na lu ñu am mais gëm nañ nii bu ñu gënee am taxawaay bi rek dinañ mën a romb foofu loolu gëm nañ ko quoi. mais est-ce que jàppaloo ni waa Tivaouane président Macky Sall daf leen euh, daf leen wan ginaaw parce que boo dee xool élection présidentielle yi passé dafa am taxawin bu bu bu waa Tivaouane taxawoon takk seen digg jàppale président Macky Sall mais dañu wax ni bi président Fallou ak léegi gisuñu seen bopp ci ci ci ci ci ci président Macky Sall. bon mënu moo wax ni gisuñu seen bopp parce que nag amul lu ñuy def. ci ci politique. bu am doole. amul politique bu am solo bu ñuy def te dugaluñ ci Tivaouane donc. gëm ma ni bon lenn li nag am na loo xam moom dama koy déplorer mooy loo gis mbooloo daf caa baax. mbooloo daf caa baax ndax góor ga dafa ñëw jël aw say sànni ko doom yi say mat ni leen damm leen ko say bi ñu def ca lu ne pour damm say bi sam yi dammul mu jëy jël say bi tas ko ni leen mais ci deux secondes ñu tas lépp damm lépp maanaam mbooloo boobu nag unité boobu ak solidarité daf fi xaw a sooxe ci leader yi. Mhm. loolu moo tax aussi parfois parce que tey bu sa benn responsable nekkee ci benn station bi danga war a am courage accompagner ko jàppale ko ba mu gën a yéeg. Mhm. parce que damay wax nii Tivaouane mi ngi gëj a amee poste ministre plein mhm. poste ministre Tivaouane mi ngi ko gëj a amee ci Ibrahima Fall. Hmm? ci Ibrahima Fall. ñu naan ma diw man leen non li may wax et la ci ci xam nga fii laa koy waxee. Mhm. Tivaouane mi ngi gëj am post ministre. ministre plein ci Ibrahima Fall. loolu nag mais ministère yi fi jaar ay Abdou Ndéné ñu ngi ko jox ministère la. Euh, suma mag Abdou Ndéné il a été secrétaire d' bu ñu wax protocole ministre poste ministre plein Tivaouane yayoo na ko yayoo na lu ëpp benn ministre ah. mhm. Tivaouane war na am ñaar ministre mhm. ñaar donc loolu aussi ci taxawaay la. ci taxawaay bi nga xam ne ñun responsable yi war nañ koo taxaw am benn solidarité bi am benn nga xam ni yàlla mooy namm cër ci doomu aadama teg ko ci joom te kam koy jox kenn mënu ci dara loolu boo ko gëmee nag danga war boo amee mbër moo xamante ni gis nga ni kii mu ngi mi ngi soox war a jëm ca kaw nga ni kii moo ko poussé dina yegg ci kaw ka bu demee ci kaw njëriñu Tivaouane gépp la nga ni nañ doon benn jàppale ko mu yéeg mais loolu nag moo fi xaw a sooxe moom moom mbooy message bi nga xam dama koy lancer tous les acteurs politiques. parce que am na comme fi ma doon waxtaanal laaj ko ni ko lan moo ko téye mais presque yéen a bokk ni ngeen waxee dafa wax ni maanaam tasaaroo bi moo indi sooxe bi bu ñëpp àndoon dajaloo yàlla mën na def ñoom mais du ñu waxtaan ba jeexal te dugg ñu ci Koulibaly ngay responsable bu dëkk Koulibaly mais est-ce que Lamine Diouf yëngu bi mu war a yëngu ci Koulibaly pour waa Koulibaly xam ko dëggantaan est-ce que mu ngi non des na loolu du ma ko nëbb des na des na te ma ci ma ci ma koy regretter nag vraiment ni ma waroon a taxawoo kul yi euh, mais li ma ci mën aussi maa ngi ko ciy def encore une fois wax naa ko sànq daanu xalamu dajul suuf kul yi dafa yaatu dafa màgg ndeysaan fii moo nekkoon fii nii moo nekkoon mën na le moo nekkoon man sam papa amoon na boutique fële Maxajuk amoon na boutique fële mm. kon man fii nga ma teg nii <laughs> mais dama ciy sawar ndaxte pour pour créer ay emploi jàppale ay nit am papa ubbi woon na ñaari boutique ci koñ bi benn bi fee la nekkoon ah mu ci jàppale ay nit euh, fii laa daan jëndee soow ak cere ñu may yónni ci kër euh, yaa almata donc fii ma toog nii sama bàjjan euh, Marème Marème Fall Mbaye kër gaa ngi nii yàgg naa fee ñëw donc fii ma toog nii dama fee yàgg a toog sawar fee toog di am fierté nag toog fii ci mbaar mi ndaxte dama fi daan toog bi may gune fi nga ma teg nii non dama la ciy sant ndax dama fi daan toog bi may gune et donc li ma lay xamal rek mooy lu ma yéenewul ku li amul bi ndox mi taayu fi sonal leen biñ ma ko waxee ci semaine bi def naa ci la ma ca mën après ñun man mais lu tax waxoon ni yow yaa ko def man leen pour pourquoi man may dëkku kuli sama yaay buy dem ci jumaa ji day xuus ci ndox mi ma mën a dindi ndox mi duma ko dindi bu ma ko dindee mais soxlawu ma dem ci rajo bi naan maa ko def sama warugar laa def mm-hmm. lu ma mën ci koñ bi dinaa ko def xëy na nag yaatoogul nu mu yaatoo mm-hmm. lu ma mën ci jàppale tailleur yi maa ngi koy def mm-hmm. xëy na yaatoowul ni ma ko bëggee ni ma mën ci jàppale école 4 maa ngi koy def su ma sañoon ñëpp ku fay képp ku fay jàngee rek doo jënd fourniture mais nag yàlla mayaguñ amaguñu boobu boobu boobu doole mais li ñu amakus néew nag ñu ngi koy bokk ak waa Koli bu wax jërë ngeen jëf mbokk yi dégg ngeen ko mu ngi noonu mooy émission bi ñu doon def vraiment émission bu am importance ci li ñu doon xaar ci moom yëpp vraiment tontu na ci eh, grand xanaa di la gërëm encore une fois di wax ni vraiment kontaan naa lool bi ma toogee fii nii vraiment ci diggante bitigu Pa Modou mbay bay kër Baye Gora di def émission ak yow yow it sama wóllare bu yàgg lool vraiment damay woote rek encore une fois ci unité ak générosité politique wax ni nit li mu war a am kenn mënu ko ko tere am. li war a doon kenn mënu ko ko tere doon. ndaxte jiitu na juddoom. beneen bi surtout les jeunes yi dugg ci politique. ma leen di ñaax ci constance. gis nga boo dëkkee ci dëkk da nga war a am jikkoy dëkk ba. que Tivaouane ku ne xam na ni bërki démb bërki biig fii ci euh, gàmm gi. ci conférence bi amoon fii Iran Ibrahima Badiane daf fi wax benn. exemple bu am solo ci fidélité ak constance nit boo nekkee ci dara danga koy gëm lu mu métti métti nga toog jàpp ca di ca liggéey foofu la la njariñ di fekk ndax ku yàgg ci teen bi baag bi fekk la fa Cheikh Al Khalifa Al Maktoum daf ko demoon utali ko bone bone faas ñëw ni ko pour mu natt ko rek xool ndax baax na jot na ko mu ni ko bu ma ko naree natt dinaa summi biñ ma xamee te bu ma summee biñ ma xamee rek fidélité bi day wàññi fidélité góor du jàpp bàyyi nit ki li mu nekk muy metti muy neex <coughs> na ci jàpp ko loolu rek laa doon jox muy dernier message quoi. jërë ngeen jëf mbokk yi mu ngi noonu émission baa ngi noonu mbaar mi gis nga ko muy nii mais grand lan nga wax ci mbaar mi nag. mbaar mi macha allah bul ci changé dara <laughs> non mbaar mi bul ci changé dara bàyyi ko nii parce que cosaan la ah. mm. ñii xam li ma xam ni cosaan mbaar mi cosaan la bul ci changé dara dégg nga ko nii. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi nuyu bu baax a baax Fatou Gueye mi nga xamante ni bu baax Gora Seck mu bu dendal waaye nag di sant sunu caméraman bii toog nga xam mooy original bi Massaw Fall mooy royal bi gis nga ko mu ngi ne <laughs> tey moo taxaw di ma lay bu baax bee di sant sama xarit di sant bu baax Moustapha ak Baye Fall sunu xarit ko amee ta ngi na moom dafa def ay rasta waaye vraiment ñu ngi sant ñëpp gërëm ñëpp alxaaji Maguette Diop ak Mame Ndokh TV jërë ngeen jëf